ànd ak euh, Ismaïla Madior Fall ministre de la justice ak mhm. des Sceaux euh, ci euh, communiqué bi mu def léegi mm, ma mhm. continuer ok d'accord dañuy dem nag ànd moo Diouf Ismaïla Madior Fall mi nga xamante ne ni euh, jàkkaarloo na ak waa Jeune Afrique wax ci mbirum Ousmane Sonko xam le ni euh, condamnation bu Ousmane Sonko jëm ci mbirum Adji Sarr et définitive yooyu kàddu la yëkkati am na nag yeneen fay yu nga xamante ne ni révélé na ko wax ko ci wàllum Conti Max bi ak. Euh, Euh, le fait ñoom ñee nañu bëgguñu éliminer benn euh, candidat seen objectif nekkul loolu mais plutôt après mu wax tantôt ne euh, Ousmane Sonko moom mënul bokk ci yële élection waaye nag ki nga xamante ne nii moo di maître Tall di ñenn kenn ci avocat Ousmane Sonko yi am na ay kàddu yu mu yëkkati tontu ki nga xamante ni moo di Ismaïla Madior Fall nañu dem déglu élément bi ànd ak Modou Diouf. tam mën a di waxee façon wax yi mel nii mais li ma mën a wax rek mooy dama am gàcce su ma déggee ñu ne diw juriste la professeur de droit la mu ngi waxee façon bi muy waxee nii alors que li muy wax xam na ni teguwul ci yoon tegul ci xam-xam teguwul ci science mais li ci li ci gën a yéeme mooy tey wax ci façon boo xam te nii dañu naan kii en réalité moom mi nga xam ne moo waroon a taxaw taxawaaye pour li nga xam ne moo ñoŋal ak ak yelleefu doomu aadama yi kooku mooy taxaw taxawaayu pour di ko boddi ak di xottay war may jàmbur mais loolu nag du def loolu a renforcer suñu gàcce si koo xam tàmm na di ko def def waaye bu yaakaaree ni voix mu ngi compté mu ngi nax boppam parce que moom attewul attewaanul loi bi li mu wax dafa leer nañ Ousmane Sonko loi moo ni comme atte nañ ko te atte bañ koy atte fekkewuñ ko loi moo ni buñ tegee loxo rek war nañ kaa mën a attewaat lu gën a gaawee ak forme xam ni moo ko concerné woon jamono avant ñu koy téye loolu mooy lan Ousmane wu prisonnier parce que il est déjà prisonnier te Ousmane jamono ji ñu ko arrêté teguñu si semaine Ousmane Sonko si la def un acte de non si luñ ko atte loolu loi bi li mu ci wax mooy mooy ñu acté wax ci ni mu gën a gaawee. kon nekkul benn ministre politique. mooy ñëw taxaw di ñu wax fi ñuy jaar ak fi ñu dul jaar. parce que Ousmane Sonko mooy candidat wu Pastef te amuñu plan A wala ay plan B wala ay plan C benn plan lañ am A ba Z mooy Ousmane Sonko te incha allahu dinañ taxaw taxawaayu defar suñuy parrainage taxaw taxawaayu préparer suñu campagne taxaw taxawaayu dem ci élection te dinañ ko gagné dès le premier tour avec une victoire bi gestu yeneen yoo xam te ne dina am fu mu leen jëlee yóbbu leen Aïcha mi ngi noonu maître Tall la bokk ci avocat Ousmane Sonko yi euh, Assane dégg nga kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko ginnaaw bi nga xamante ne ni Ismaïla Madior Fall euh, doon na am ay explication yu mu doon joxe fële ca Jeune wax ne Ousmane Sonko kon condamnation bi lu définitive la en plus wax na ne seen objectif ñoom nekkul ne dañu bëgg éliminer benn candidat après mu wax ne Ousmane Sonko moom mënul bokk est-ce que jàpp nga ni wax jooju noonu am na cohérence Soumaïla daa bind daa wax daa wax ak waa Jeune Afrique wax hmm. ana élément am ah, li laaj rek li mu wax si laa sukkandiku pour laaj la question bi waaw non xam nga xam nga Ismaïla ñoom li seen problème mooy bi ñu jàppee Ousmane maam bi usmaan Sonko bi ñu bi ñu paree pour jàpp ko biñ bi mu nee tag rek dañ ko waroon a jàpp mais waruñu woon a di jéem a teg ay mbiram si yoon jéem a teg ay mbiram si yoon moo indi affaire bi ñëw ba si cëppaanjaw ga ñu ni garaawut nañ ko nañ ko jàppaleeg benn. Hmm. mais bu fekkee bañ ko jàppoon xaj na mbir yi li leer lépp ak ak mbirum yoon liñ si xam lépp mën naa bañ a am ba leen ba mu leen leeree ni kii kat duun kuy rëcc bañ ko jàppee dañ ko waroon a jàpp bañ a indi affaire yi yoon ak ay affaire leeral ak yooyu. ndax xam nga tey ñun ñu xam ne xamuñu ay contumace ak ay yooyu yëpp dara lañ ci xamutoon léegi Sénégal gépp xam nañ ay contumace mooy nit koo xamante ni da nga koy jàpp wër nga ko ba sonn mënoo ko gis xamoo fu mu ban àdduna la nekk xamoo si suuf la nekk xamoo fu mu ne waaw nga ni kii kat jàpp nañ kii kat dañ koo àtte daan nañ ko lii ndax gisuñu ko mm. te kii kat bi nga koy jàpp ko daan muy Casamance te di naan njarum soowam di naan kafeem nga def loolu loolu rek doy na sëkk sëkk sëkk échec voilà koy daan rek mu tëdd Casamance Casamance bokk Sénégal mënoo koo jëli nga daan nañ ko fu ñu ko fekk loolu donc doy na sëkk defet foofu la ñu waroon a yamale affaire bi daal mhm. mais nee na du bokk hmm? nee na du bokk waaw loolu warut a génn si gémmiñam ndax su boobaa day dañuy Sénégal yi diglu dañuy xam ne mbirum bokk leen intéressé mbirum bokk waruñu ko du maam mbirum yoon ñi nga xam ñu ngi yëngu si yoon yëpp ku leen wax Ousmane Sonko na bokk ak du bokk dinaa leen yoon suñu yoon nekku si. Mm. nañ def seen liggéey léegi wax nag tontu bi mu ko tontu. ah baax na joxe hélas. ah mais Assane yow tamit nag. dañ la teg fii yow. mais moom kii wax na kay man kay kii wax maître daal ki tontu moom it kooku laay tontu kay. Ah. ah kon baax na bàyyi ma jox El Hadj El Hadj mm-hmm. man euh, lu ma seetlu mooy que ne lu yàggul dara El Malick Ndiaye daf fi génn wax euh, li nga xamante ne ni moom la ñuy waajal après tout juste après le magal de Touba ñu gis ni ministre bi génn na itam xamal leen ni euh, ki ngeen di waajal. pour ba mu ngeen créer coalition boo xamante ni moom la ñuy samp ngir mu mën a dem ci élection yi moom du mën a bokk ci yile élection euh, yi ñu jëm ci février 2024 en plus euh, li mu wax ci condamnation Adji saax bi ak tontu bi ko Maître Tall tontu. waa xam nga kiy bokk. ak mm. ki dul bokk moom. Mm. yàllaa ko xam. Mm-hmm. ñoom nag mën nañoo def ay pexe. Mm. àddina noonu la mës di doxee. àddina day dox ci nit ñi di def seeni pexe. di wane seeni bëgg-bëgg waaye du caagi ni li ngay bëgg mook liy am guddi la ak bëccëg. mais est-ce que du ñee lay tontu même bu fekkee ne day tontu. Hmm. li nga nit di bëgg ak liy am mën nañu waroo lool ñoom ñi ku ci xool xam ni Ismaïla Madior tey buñ ko waxoon na ko bés dana jot hmm. ngay waxee nii ci ay jamono du ko gëm. te tey mi ngi koy waxee kon jàpp naa ni nii mu nekkee nii bokkut ci bëgg-bëggam waaye ay mbiree dox ba tey mu nekk fii mu ne. ci position nekk ci position bii mu ne. boo xamante ni peut-être am na ñu nekkoon ci position yii démb peut-être sax mu daan toog ci ay jotaay di leen ŋaañ. Hmm. et pourtant tey mi ngi ci même position bi kon ay bëgg-bëggam amu ko. moo ko tax a nekk ci li nga xamante ni bi tey mooy position bi mu nekk nii. leneen li nga xamante ne bi am na deux mille vingt quatre hmm. luy ñëw la. incha ku ne nag day def say programme ak ni nga ko xalaatee lay am yàlla rek képp mooy ki ko xam <laughs> di nga gis nag ñenn ñu bari génn ne nii la yëf yi di demee waaye la ñuy wax ne noonu la yëf yi di demee ñu ca bari la ñuy wax du di demee kon nan la yëf yi di war a demee en tout cas nit ñi nañ ne ci li ñu war a ne waa parti Pastef li nekk ñu ngi ci war a ne ñoom it nekk nañ ci li ñu war a ne mais dama jàpp ni réew mi fi mu toll nii boo dégloo nit ñi nga xam ne ñi ngi toog jàng droit toog ci pénc bi di wax ak ñun ak liy xew ci mbiri Sonko guddi la ak bëccëg mm-hmm. léegi man damay wax ni léeg-léeg dama naan waaw mais xanaa ñi jàng droit moo ko luñ parce que li ñuy wax ci droit ne lii la droit war a doxee ak li ñuy gis ci pénc mi dafa wuute lool bu dee Ousmane Sonko la kaawam taxaw parce que dañ na contumace buñ lay jugé dañuy jugé koo xam ne xamuñu fu mu ne nga gis waa ji ne fii nga jugé ko par contumace daa de ne xaw ma fu mu ne. <laughs> waa jooju nga ne xaw ma fu mu ne moom Ismaïla Madior Fall mu taxaw nañu. bu ñëwee considéré wu comme prisonnier atte ba daanu na bu ñëwee expliqué nañu yii yëpp nañu buñ ko jàppee atte ba daanu na moom moo ñu ko wax waaw léegi loolu mu ñu wax noonu yëpp tey moom Ismaïla Madior Fall en personne mi ñu waxoon nañu nii ne peut faire plus de trois mandats de deux mandats kii moom moo ñëwaat encore xamal ñu nañu waa ji c'est définitive kii léegi nag ban Ismaïla Madior Fall lañ jàkkaar lool ndax Ismaïla Madior Fall bi waxoon ca Tëngéej ne candidature Ousmane euh, président Macky sàll du mbirum droit nañ ko teg fële mbirum politique la ndax tamit seppi Ousmane Sonko daf ñoo bëgg a wax foofu ne ñu du mbirum droit mbirum politique la wala mbirum droit la. Ah, mais moom c'est que il faut ñu xam moom fan la carrément radiation beeg yeneen yi jot a xew yëpp moom avoué na ni ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ko def. waaw mais xam nga dama ne nañu wax nañu. waaw droit la wala politique. politique la waaw bu dee politique la nag. Abdoulaye Wade da ne woon procès politique kenn du ko gañee ci tribunaux yi. déedéet mais ci mbedd mi lañ koy gañee ci population bi lañ koy gañee foofu lañ koy gañee maanaam convaincre ñi nga xamante ne bi ñoo kii parce que loolu mooy li nga xam ni moom la ñuy wax procès politique mm-hmm. donc loolu mooy li nga xamante ni bi moom laay wax Ismaïla Madior Fall mm-hmm. voilà di wax ne daal euh, nii muy doxalee bu ñu demee ba ay ñoom maître ta ay maître taal yi mm-hmm. xale yu ndaw lañ ci kanamu Ismaïla Madior Fall wallaay yaa ngi dégg peut-être sax ñoom Ismaïla Madior ñoom maître taal yi Ismaïla Madior Fall bokk na ci ñi tax ñu bëgg droit tey bu ñu demee bay taxaw di ko corriger di wax naan ndax dañoo xamut ndax lii la bu mu jàng dem bañ naan la professeur ñu dem ba ay xale yu ndaw di la wax loolu ci pénc bi vraiment euh, fi mu nee de euh, en tout cas kawe woon na amoon na amoon na niveau bu mu tolloon benn part du nekkul dañu trahir seen serment parce que ñëpp xam nañ ni soo defee droit ba noppi ba war a exercer da ngay dem nga prêter serment su fekkee nii da nga dem ba ci biir nag nga jàdd def beneen dem ci beneen côté bi. ba xam nga serment moom man serment moom wax dëgg fa yàlla. ni ko mm. gars yi di waatee waat yooyu. Mm. Euh, nit ñi lu ñuy waat dañ leen a war a tegal li ñu gëm ñu waat. muy alxuraan mais euh, boo seetee par exemple dañ lay waat loo fële waat boo xamante ne bi yow waat ba na ngay waat gëmoo ko. te yow jàpp nga ni sa diine lim la wax ne la waatal ak lii ñu naan la waatal du waat waaye bu fekkoonte ni bii tey dañ ne Assane Mesere mii de ab jullit la moom la ñu génn na jàng na wàllu yoon wane ni du ci dëngal ñu indi kaamilu alxuraan tegal la ko sa kanam ay imaam wala ñu ne la Assane Mesere nga daa dee waat ne fas yéene woo def dara ci lii te loo ci def nii. Mm. waat ko ci li nga xam ne alxuraan gu gëm la. Mm-hmm. gëm naa ni di nga nekk fa ba jóge fa. am na lu bari loo xam ne di nga ko xool sa diggante alxuraan parce que loo gëm la hmm. mais nag bu fekkente ni bi moom da ngay waaye nag naan jegi rek ay et cetera loo xamante ni bi gëmoo ci dara la waaw mais kaddu xam nga kaddu sans dépend ci nit ñi xam nga tey hmm. euh, gis nga kaddu hmm. mës naa mës nañoo ànd benn bis benn màggal màggal gi ñu doon dem mada dañ doon dem benn màggal mada des pape fekk woo naa Mansour ba mu wax ma benn waaye boo xam ne euh, waa ji waxaale nañ ba juboo pour mu luyee ma oto ñu waxaale ba juboo bi ñu waxaalee ba juboo pendant ce temps mécanicien bi ñuy jox oto bële mécanicien ba defar na ko léegi eh, yaay ne ma waaw ndax doo bàyyi waaj bàyyi waaji hmm. comme si oto bi normal ma ne déet waaji ma koo bàyyi hmm. parce que wax nañ ba pare joxante kàddu jox naa kàddu ba moom mi ngi dem di yóbbu ci oto bi di ko loolu donc il faut ma xaar ko dégg kay oto bii moo mën a xaar rek waaye bee moom il faut ma yóbbu ko c'est parce que waxaante naa ak waa ji ba pare. Hmm. parce que kaddu mooy nit. Hmm. boo xasee ba perdre ko. Hmm. pour man nit ki bu amut bu ay kàddoom wérut. mooy li Idrissa Seck kàddu yu wérut te ba noppi dafa boo ma tax di kii bu ay kàddu wérut. man vraiment mënumaa gisati lu ñuy jàpp ci nit ki quoi. parce que nit man boo jàpp naa ni. Mm. lu ñuy signé lu ñuy wax mais boo waxee jox la ma wax ma wax delloo la jàpp naa ni loolu doy na. doy na ko mm-hmm. pour lépp lu ñuy tënk ñu tënk ko ci. Mm-hmm. parce que wóolu naa sa kàddu. Mm-hmm. wóolu nga sama kàddu. loolu lu ñu war a sàmm la. mais bu ñu demee ba léegi réew mi moom kàddu yi moom nit ñi respecté wuñ ko loolu problème am. moo tax ceddo yi liñ doon nekk ceddo gëmuñu woon kii mais kàddu moo nekkoon seen lépp. waaw lu luñ ne dañ koy def dañ koy def même bu leen dee di ci fekk dinañ ko mm. def parce que loolu mooy li nga xamante ne bi mooy seen ngëm-ngëm mm.